ñu ngi dalal euh, tey euh, monsieur Assane Diop moo jiitee conseil départemental bu Koungheul euh, nekkoon ministre de la santé bu régime socialiste mooy bi mu jee d'ailleurs monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinalu tey bi. waaw soxna Fatou ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay jërëjëf bi ngi amee xalaat pour boole ñu ci waxtaan wi ñu ngi lay ciy sant bu baax. Mm-hmm. alors monsieur le ministre euh, depuis weeru mars 2000 Sénégal euh, léegi moom at mi ngi dund mbas mi di pandémie coronavirus euh, tey boo xoolee situation bi ban jàngat nga ci def ak surtout deuxième vague bi nga xam ne moo ñëw di gën a fësal contamination wàllante bi waaye itam ay bakkan yu bari di rot. waaw jàngat bi mooy mbir mi lu doy war la loo xam ni war na tax ku nekk fagaruwaat ñu war a sant yàlla nag bi nga xamee ni. Euh, am nañ euh, président de la république euh, boo xam ni xelam yëpp mi ngi ci naka lay def ba mbas mi jóge fi matuwaay yëpp mi ngi koy jël pour mbas mi jóge fi moom ci boppam jiite xeex bi ci pour que loolu mun a am itamit gërëm sant ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom tam ak. Euh, ñi mu bokkal liggéey bi ci biir ministère bi ñu ngi def euh, liggéey bu mucc ayub ayub euh, ci mëtal wax dëgg yàlla li ñuy war a taxawee pour que mbas mi jóge fi loolu nekk na loo xam ne lu am la waaye tamit nag wax dëgg yàlla foog ñu am tuuti njaqare ci nit ñi ni ñu koy gisee parce que ba léegi pour man des na nit ñi war nañoo soppali dañuy doxe ni ñuy nekkee ak ni ñuy jëfee pour que mbas mi mënu fee jóge nit ñooñu sax euh, am na ci ñoo xam ni ba léegi gëmuñu ne jàngoro jaa ngi fi tax na ñu tëw a respecté gestes yi nga xam ni jàpp nañu ne ba tey moom moo nekkagum euh, saafara ci mbir mi yooyu la nit euh, nan nga yaakaar ne noonu la nguur war a doxale ak ñoom ngir xëy na ñu mën a xam ni tey jot na ñu soppi ni ñuy doxee. waaw xam nga nguur gi moom ministère de la santé li ko war mi ngi koy def mooy docteurs yi ñooy faj ñoo xam ñoom ñoo wax nit ñi war a nekk ñoom li ñu war a wax yëpp wax nañ ko li ñu war a def tam ñu ngi koy def ci biir l'hôpital yi bu fa nit ñiy demee euh, li ñu wax nit ñi ñëpp xam nañ ko dee leen takk masque takkin bu bu baax de leen raxasu euh, de leen sorente lu lu lu romb mètre euh, loolu la nit ñi wax bu leen nuyoonte ak yooyu mais nag loolu loolu du gouvernement moo koy régler loolu nit ñoo ñoo war a soppali seen gis-gis seen nekkin ak seen jëfin pour mu mun a changer parce que euh, li ma gëm euh, di ko wax toujours mooy que euh, boo jëlee xeex bi ñi ci gën a ñi nga xam ñoo ci gën a mën a indi résultat ñu njëkk ji mooy xale yi xale yi parce que ñoom ñooy dem ñooy ñëw Euh, euh, te itam euh, ñooy ñi nga xam ni ñu ci gën a bari ci feebar yi dinay jaar si ñoom même bu leen du lor lu bari kon xale yi ñoom seen bopp dañ leen war a boole ci mbir mi di leen laaj seen xalaat di leen laaj naka lañ yaakaar yi noonu lañ mën a def pour mbas mi bañ a bañ a law parce que xale yi yàlla def na ni ñuy toogee ci seen biir ni ñuy waxtaanee seen biir ni ñuy nekkee ci biir dëkk bi ak yooyu yëpp boo leen ci boolee ñoom danañ la xamal naka la ñu war a def pour mbir mi baax parce que ñoom la seen biir la xamante nañ bu baax euh, diggante association yi groupement yi yooyu yëpp ñoo xam ne ni ñuy waxtaane seen biir pour di indi euh, kàddu yi nga xam ni euh, mooy indi coppite ci nekk ni seen biir d'abord nekk ni seen biir ak nekk ni nit ñi donc dama jàpp ni xale yi ñoom ci ñi régler problème bi ci lañ bokk waaw kon dañ leen ci boole di leen déglu itam nag parce que boole ci nit te dégloo ko it amul njëriñ dañ leen di boole ci waxtaan yi di leen laaj seen xalaat ñoom tam ñu indi seen xalaat ak seen gis-gis dama foog ni dana gën a accélérer prévention bi euh, jigéen ñi tamit wax dëgg yàlla foog ñu wax ci parce que xam nga jigéen ñi tey ñoom ñooy dem ngénte ñooy dem ceet ñooy dem ci dëj yi jóge fa ñibbi seen kër kon li ñuy wax masque bi ak euh, bañ a jegante bi ak euh, yooyu yëpp euh, jigéen ñi ñoom seen bopp bu ñu xamee ba moytu lu bari na réglé yi tamit bu ko defee boo xoolee bu baax boo jëlee xale yi jël jigéen ñi boole leen ñoom seen jëf seen wax seen nekkin ci xeex bi ñu war a xeex pour xamal nit ñi li ñu war a moytu ak ni ñu ko war a moytoo bu ñu ko defee rek yu bari regle parce li ma wax ci xale yi euh, xale bu ko am yaa ngi jëm sa kër danga nga sa waajur di nga lor ñi nga dëkkal waaye jigéen ñi itam ku dem di nga lor sa jëkkër lor say doom lor say goro lor ko nekk donc problème bi yëpp mooy nañ fexe ba ñooñu taxaw ni ñu war a taxawee waaye nag pour ñu taxaw il faut ñu xam pour ñu xam tam foog ñu wax leen ba pare déglu leen loolu am na ci solo itamit kilifa diine yi ak kilifa aada yi seen seen taxawaay daf ci am solo parce que euh, euh, man dama jàpp ne tey Sénégal kër diine boo dem ña ko jiite ñu ngi wane yoon wi foo ci munta dem ñu ngi takk masque di wax moytu leen kon kay ci dëkkuwaay yi ak ci dëkk yi ak gox yi gox goxaat yi wan nañ mun a euh, sunu kilifa diine ya fa nekk ñoom tamit yëkkati seen kàddu boole ko ci waxtaan wi loolu tam dafa am solo itamit boole ci ñi nga xam ni ñoom la ñuy wooyee euh, communicateur traditionnels yi maanaam suñu euh, dégg sunu euh, géwél yi sunu tëgg yi ñooñu nga xam ni dañuy faral di yëkkati seen kàddu di siiwal ñu boole leen ci ñu yëkkati seen kàddu siiwal ci lu ci jëm ñi théâtre nañ ko si gën a siiwal loolu yëpp dañ ko war a yëkkati pour mu mu mu mu mu jëm kaw itamit boo waxee loolu ba pare nga nga nga xalaat nag léegi na ngay def ba ñoo ñëpp ku ci nekk li nga wax mën a nekk jàppale leen ci pour mu mën a nekk loolu tam am na solo bu ko defee ñu lëkkaloo ak waa kër dispensaire euh, xam ni ñu war a toogee pour ñun ñëpp ñu àndandoo xeexandoo mbas mi. Mm-hmm. état ci ndoxteel gi ba léegi sax mi ngi koy wéyal tuuti euh, jëloon na matukaayu xeex euh, di daan yenn saa ñu jàpp ñenn yeneen saa yi ñu almaan leen loola jàpp nga ne solution la itam ci mbir mi. xam nga loolu li ci nekk rek mooy. Euh, xam nga euh, booy booy booy booy xeex dara il faut nga yëkkati li nga xam ni euh, moom la nit ñi di def attention tey xëj na solution bi mënoon na nekk neneen bu ku fekkoon ni nit ñi ñi ngi def li ñu leen di tere ñi ñu ñi ngi bàyyi li ñu leen di tere waaye nit ki li ñu la tere ba pare nga di ko def kooku mënoo lu dul janoo moom te janoo bi sax gënalul kenn man li ma wóor may janoo bi gënalul kenn kon nag li ma doon wax sànq rek moo dellu si euh, xale yi nañ gën a wax ak ñoom gën leen a ñaax gën leen a responsabiliser euh, ñoom seen bopp ñu nekk soldaar yi nga xam ni ñoo war a xeex pour beex bi euh, mbas bi jóge fi bu ko defee ñoom ci seen ni ñuy nekkee wóor na ma dinañ bàyyi lu bëree bari ci li ñuy def actuellement jigéen ñi tamit nekk ay soldats pour pour loolu bu may wax sax léeg-léeg di wax jigéen ñi ak ak. ndaw ñi dafay mel ni mag ñu góor ñi bokkuñu ci te eh, mag ñu góor ñi ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir ci xeex bi dañu war a taxaw euh, parce que ñoom ñoo ñooy kilifa xale yi di kilifa jigéen ñi kon ñoom tamit seen nekkin ak seen waxin am na ci solo trop parce que nit day am kàddu ci biir këram ñoom tamit war nañoo wax seen bër kër yi ak seen daayira yi ak ak seen toogaay yi ak seen liggéeyukaay yi pour que ñoom tamit seen warugar ñu def ko ci xeex bi mm-hmm. Euh, leneen li nga xam ne itam tey euh, ci la àdduna toll mooy euh, mbirum vaccin gis nañu réew yu am doole yi daanaka danoo wone seen foqale yenn ñi sax mel ni ñu fàtte ña ca des xalaat seen bopp rek tey Afrique am jafe-jafe ngir jot ci boobu le vaccin initiative COVAX doxagul ni mu waree tax yenn réew yi sax xëy na di tàmbali demal seen bopp ngir ama tuut tey boo doonoon ministre de la santé ci Sénégal lan ngay digle ngir ñu mën caa sukkandiku xëy na mën caa génn ñun ak yeneen réew yi mais li may wax rek mooy euh, président de la république mi ngi ci am taxawaay bu bu ñëpp nangu ni taxawaay bu ràññeeku la ministère de la santé mi ngi taxaw taxawaay bi nga xam ni taxawaay bu ràññeeku la euh, li am mooy euh, mbirum ñàkk bi vaccin bi ci ñaari fànn lañ ko mën a taxawee te te gouvernement bi mi ngi ci bàyyi xel bu baax bu njëkk bi mooy OMS maanaam mbootaayu réew yi Eh, ci ci àdduna bi am na ci banxaas boo xam ne mbirum wér-gu-yaram lay toppatoo ñooñu dañoo war a taxaw taxaw bi ñu war a eh, taxaw pour que ñoom tamit eh, ñi ci war a jot ñëpp jot ci waaye tamit biir Union africaine maanaam mbootaayu xeet yi mbootaayu réew yi nga xam ñoo nekk ci biir Afrique ñoom tamit ñu mànkoo nekk benn pour ndax ñu mun a am doole pour mun a Euh, euh, wax li ñu war a wax ci biir OMS wax li ñu war a wax ci seen biir pour que mbirum euh, ñàkk yi bu ñëwee ñu mun ci jot nañ ci war a jotee waaye ñaar yooyu ngay boole te yooyu ñaar yooyu yëpp wax dëgg yàlla ñu ci sant yàlla bu baax président de la république am na ci taxawaay bu bu bu ràññeeku ministère la santé itam li mu ci war a def ci mbirum OMS taxawaay bu ràññeeku kon mbir mi foofu la toll. ñi nga xam ni tey ci ñoom lañ ko yaakaar. Euh, bu ñu waxante dëgg mooy ñoom seen bopp tal ñu lu bari. kon nag ñoom seen biir mët ñu euh, ndegam ñoom mët léeguñu nag euh, sakkaa ñu ni xam ne amuñu dara moo tax dafa laaj organisation ak solidarité bu bu am solo parce que mbir mi kenn mënu cee mucc bu fekkee ni ñëpp mucc. foo faut ñëpp mucc ku nekk mën a mucc. alors euh, mbas mi itam jur na gàllankoor ci yenn gox-goxaat yi ne ci réew mi surtout collectivité locale yi nga jiite conseil départemental bu Koungheul foofa euh, ban tolluwaay ngeen nekkee tey ci ci mbas mi. waaw euh, Koungheul fi ñu ci toll ba léegi yaakaar naa ne ba ma juumal am nañ fukki cas ak ak ñaar am nañu ñaar ñu ci faatu ñu ngi def li ñu mën ci biir xeex bi. Euh, ma wax di jeunes yi ndaw ñi ñoom ñu ngi taxaw taxawaay bu ràññeeku euh, ñi ngi def prévention bu baax euh, conseil communal de la jeunesse yi conseil départemental de la jeunesse ñi ngi wër di wax ci gox yi goxaat yi pour wax ni que nit ñi war a nekkee foofu yi tamit ni ñu ko waxee ci kaw rek lay jigéen ñi des na pour ñu gën a taxaw parce que comme ni ma ko waxee ñooy dem ci fi nit ñi di daje muy ngénte di ceet di di di di dëj euh, euh, ñu gën a xam ni dañoo war a moytu euh, tey moytu niñ ko liñ leen ko waxee loolu yëpp am na solo foofu ñun liñ ci ci yoon bu njëkk bi nga xam ni yi fi jaaroon na fi taxawaay biñ taxawaay taxawoon yaakaar naa ne ràññeeku woon na te bii tamit nañ ci taxawaay nañ ci war a taxawee ñu ngi ci liggéey ak waa docteur Euh, ak euh, bu ci yegee préfet moo ko jiite ak dinañ taxawaat niñ ci war a taxawee euh, waaye li ma wax mooy boo jëlee collectivité territoriale yi boo jëlee ci Sénégal yëpp département yi ak communes yi ñoom ñëpp taxawoon nañ bu baax danañ taxawaat bu baax loolu lu ma wér la bu ko defee nag ku nekk ak sa gox na ko war a téye ñu fexe daal ba prévention bi maanaam gàttandu xeel xeel eh, nu tëti eh, eh, feebar bi balaa moo gën a law ñu taxaw ni ci war a taxawee danañ ci taxawaat incha allah ni ñu waree. Hmm. est-ce que am ngeen jumtukaay yu doy maanaam bërëbu fajukaay yoo xam ne dana àttan jël ñi nga xam ne ñoo wopp ci jàngoro ji di coronavirus. bu bu weesoo dayo duñ ko mën parce que ñun benn centre de santé lañu am amaguñ sax hôpital niveau 1 benn centre de santé la ñu am ak ay ak poste de santé te doyul. kon nag euh, bu bu bu bu weesoo dayoo du du baax dara dara euh, kon moo tax ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéem a góorgóorlu pour mu bañ a romb loolu euh, jusqu'à présent fi ñu ci toll nii suñ docteurs yi fa nekk ñu ngi góor bu baax ak infirme yi li fa jot a feeñ ni ñu ci taxawee rafet na ak service d'hygiène ak yëpp waaye nag ñaanu yàlla mu romb parce que bu rombee dana xaw a doy waar moom. ma xaw mbas mi itam dafa wane ni Sénégal euh, ni ki yeneen réew yu bari waaye ñun rawatina am nañu retard bu bari ci wàllu structure sanitaire maanaam bu fajukaay wane na itam ne wàllum wér-gu-yaram lu ñu war a bàyyi xel la bu baax a baax bu fekkee ne sax du farata bu njëkk bu nu génnee ci mbas mi lan nga yaakaar ci ministre de la santé bi nga doonoon ne ca la ñu war a a liggéey bu ko defee leneen lu mel nii ñaanuñu ko waaye bu dalatee suñu kaw ñu mën am xëy na doole bu ëpp bi bu nu mën a taxawee waaw kooku liñ wax rek mooy li nga xam ni moom le président de la république di def fi ñu ci tollu nii parce que président de la république euh, euh, ak euh, dogal yi mu jël itam ak digal yi mu digle ci ministère de la santé fi mu nekk nii boo ko seetlee bu baax ak li nga xam ni yëpp décision yu bari yi nga xam ni yëpp jël nañ ko mooy fépp lépp loo xam mooy fajukaay dañ koy yokk Sénégal lopitaan yi dana gën a yokk Euh, ci ci anam bi mu nekk euh, euh, xam nga hôpital yi yëpp yemuñu waaye niñ teglonte dana gën a yokku bu ko defee jumtuwaay yi mu laaj pour liggéey bi dana yokk fi mu nekk nii tamit ñi ngi ñi ngi ñi ngi jël bu baax ay ay personnel santé di leen recruter at mu jot te day gën a yokku euh, garab yi day gën a yokk président la république bu ngeen bu yàggul rek mi ngi waxtaan lu jëm ci pharmacie nationale d'approvisionnement euh, di ci waxtaan pour que ñu gën leen a dooleel euh, mi ngi wax tamit ci lu jëm ci ni ñuy yokkoo gëstu bi ci mbirum wér yaram Euh, yokk bi ngi wax tamit lu jëm ci ni ñuy gën a euh, euh, ci biir gëstu boobu am ay kuréel yoo xam ni dinañ gën a mun a saytu garab yi ba nga xam ni garab bu baax ak bu bon dañ koy xàmmee ba mun a yenn garab yu bon yi ba ne dugg ci réew ma xam li ma bëgg a wax rek mooy président de la république vraiment fi mu ci toll ni décision yi mu jël jëmale ko ci euh, ci ci paj gi ci santé bi nekk na décision yu am dooleel lool lool lool man gisuma wax dëgg yàlla euh, euh, boo seetee ci organisation bi nga xam ne moo yore mbirum wér-gu-yaram ci Afrique ku jël décision yu ëpp lu président Macky Sall jël amu fi donc li ma bëgg a wax rek mooy du pour doylu waaye nag nangu ni Euh, euh, euh, Sénégal mi ngi def li mu war a def waaye mbirum santé moom du doy mukk du doy mukk parce que même réew yi nga xam ni dañoo dañoo développé sax muy États-Unis muy France fu mënta doon ñoom seen bopp dañuy am problème mu wér yaram kon du doy mukk day gën di yokk rek soxla si gën a yokk waaye nag ku def ñu d'accord ni li nga def ci jëmale ko ci wér-gu-yaram am na fi ñuy jaxalee mooy wàllu koom-koom ndax mbas mi dafa ànd ak ay loraange ci wàllu koom Sénégal euh, tolloon ci relance maanaam suqaliwaat koom-koom bi ñu tegoon ab plan waaye deuxième vague bi ñëw mel ni lu nërmeel lépp yaakaar nga ni ba tey fi nu toll nii wàllu koom mën nañ caa génn ak euh, li nga xam ne moom lañu ñu tëraloon nii pexe. xam nga euh, mbirum feebar bi nekk na feebar boo xam ne feebar bu doy waar la parce que li muy téye ci koom dafa bari li muy yàq ci koom dafa bari. Euh, moo tax euh, ñu ñaan yàlla moo war a teer fi jóge parce que fi mu nekk nii euh, programme bi nga xam ni réew yëpp tëraloon nañ ko yëpp ñoo ñoom la seen laaf tooy fi mu nekk nii muy réew yu am doole yi ak réew yu toll ñu ñun ñun ñëpp ku ci nekk plan yi nga amoon pour yokk sa koomu réew pour pour suqali sa sa koomu réew plan yooyu yëpp fi mu nekk nii xaw naa sooxe ñun suñ plan Sénégal émergent bi tam xaw naa sooxe loolu lu jaadu la donc li ci am solo mooy bëre bu mu teel fee jóge euh, nu mu ci nu fi gën a gaaw a jóge ndax ñu mun a amaat ndëgër lay bi ñu war a taxawa pour euh, euh, sunu sunu koom jëmaat ci kanam ji sant yàlla nag Sénégal ba nga xamee nii ni wu ñu waaye nag na fi teel a jóge daal moo ñu jik moo jik ci àddina bi yëpp parce que toll nañ foo xam ni ñëpp ay jógandoo wala ñëpp daanondoo kon nag yàlla nañu yàlla taxaw ba euh, ñëpp jógandoo euh, euh, ba ñëpp mun a taxawaat ba nga xam ne suñ programme yi nga xam ne defar nañ ko yëpp pour suqali réew yi ñu mën ko réew yi ñu mën ko def pour que sunu koom jëm ci kanam. jërëjëf monsieur le ministre euh, ministre conseiller euh, nekkoon itam ministre de la santé ci jamonoy président Abdou Diouf jiite tey conseil départemental bu Koungheul ñu ngi lay gërëm euh, monsieur Assane Diop amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. jërëjëf jërëjëf am naa kontaan trop ci waxtaan wi ndax nekk na waxtaan wu am solo yaakaar naa ko parce que toujours wax ji waxtaan bi du doy lu ci nit mun a wax rek pour nit ñi gën a xam gën a moytu dafay baax. kon nag ñu ngi leen di jëfal yéen ñi ngi xam ne yéen a yore euh, mu dem euh, communication bi média yi nga xam ni seen liggéey am na ci solo trop trop ñu ngi leen ci gërëm leen sant